seen dund ci wàllu leer lu muy firndeel ak lu muy tekki ci waxtaan bi paase ñu nekkoon ci Cheikh Alhaji Umar ci cëram na mu toll ak dundam ci wàllu leer ak melokaanam tey ñu fas yéene dugg ci kenn ci gaayu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaan yi te di Cheikh El Hadj si Sy Cheikh El nag dundam ci wàllu leer ñu bare xamuñu ko waaye boo xoolee dundam ci shahada rek nga xool melokaanam ak jukko ya mu amoon nga xool it mu liggéey ci tarixa bi ci réew mii di Sénégal boo xamul dundam ci wàllu leer it war nga xam ni dund gu yaatul ndax Cheikh Al Hadj Umar bu ñu fàtte ni laata Cheikh Al Hadj Malick di gane àdduna ci shahada waxoon na ñamu am moom Cheikh Al Umar ni leen moom mission am du tasaare tarixa bi ci senegaal waaye mission mooy mu jox ko ku ko tasaare ci senegal te muy Cheikh Al Hadj kon yëgle woon na ni moom amewul mission tasaare tarixa bi ci senegal waaye dina ko teg ci loxo koo xam ni dina ko tasaari ci réew mi te muy Cheikh Al Hadj moom Cheikh Al Umar waxoon na ko su ko defee bu ñu jàngatee dund Cheikh Al Hadj ci wàllu leer. dañuy gis ni moom mu ngi bokk ci xeetu wëli ya ñoo tuddee wëli yu kunuz waaw ndax ñu bare lu ñu xamul axtaab yi ñeent ñi amul kenn koo xam ni yàgg sa moroom yenn bokk xeetu wëli ba ngeen jógee amul waaw ñu bare xamuñu loolu xamuñu ni axtaab ak moroomam mënuñu bokk xeetu wëli yu ba ñuy jóge ndax axtaab toujours day diriger waaw axtaab day diriger te su fekkonte ni da nga bokk ak sa moroom wëli yu xeet su boobaa problème day nekk ci kuy dirise ndax lu tax cër ya tolloowuñu jëmukaay yi ci côté lumière tolloowuñu waaw moo tax Cheikh Alhaji Malick mi ngi bokk ci xeetu wël yu ñu tuddee wali yi kunuus wali yu kunuus nag ni ñu waxe woon ci Cheikh Alhaji Umar muy wali yi nga xam ni ñooy leeral ñoom àdduna wali yu kunuus mooy wali yi nga xam ni seen leer du xëy bukk di wàññeeku waaw mooy wali yi nga xam ni bis bu xëy seen leer day gën a waaye du wàññeeku suñu toogoon julli wunu woorunu zikrunu seen leer bés bu xëy day gën yokk ñoom la ñu tuddee waliyu kunuus ñoom bés bu xëy seen leer day gën di yokk di gën di su nu dundee ci at ñu ni am nañu ñaari at na seen leer di toll suñu amee ñetti at moo koy ëpp na seen leer di toll ci ñetti at na muy toll suñu amee fukki at moo koy ëpp na muy tollu ci fukki at na muy toll bu ñu amee ñeent fukki at moo koy ëpp na muy toll bu ñu dee dund bu ñu génnee àdduna moo koy ëpp fan yu nu am si bàmmeel na leer ga di toll tey na muy toll suba moo koy ëpp ñoom la tuddee waliyu kunus Cheikh Al Hadj Malick ci xeetu wali yooyu la bokk moom moo leen diriger moo diriger waliyu kunus kon loolu doy na dèjà ci kéemtaanam ci wàllu lumière ndax ci xeetu wali yam bokk ñu néew ñoo cay bokk rawatina mu diriger leen ci xeetu waliyu kunuus kon loolu nekk na lu rëy ci wàllu leer dèjà ci dundam te bokkul sax ak leneen li nga xamee ni dund na ko ci wàllu leer ñu ne yaa dirigé waliyu kunuus rek doyoon na beneen fànn bi mooy Cheikh El Hadj dund na ak lumière yonent bi 400 ans ñeenti téeméeri at dund na ak lumière yonent bi ca dund na ak yonent bi ci leeru yonent bi ñeenti téeméeri at moom Cheikh El Hadj dund goo xam ni ñu ngi ànd moom ak yonent bi nu di ko dund ca xay waaw quatre cents waaye yamu ci ci dund googu mu dund ak yonent bi lumière bi yonent bi ganee àdduna moom Cheikh El Hadj dafa ànd ak ruuxu yonent bi yonent bi bi mu ganee àdduna guddi ga mu gane àdduna ci monde shahada noonu yonent bi juddoo ganee àdduna Cheikh El Hadj dafa ànd ak moom ci ruuxam yonent bi na mu nekkee liir noonu di nàmp Cheikh El ànd ak moom yonent bi continue di dund ci saxaada Cheikh El Hadj Malick continue ànd ak moom mu continue amul benn seconde wala minute bu ko ci dund yonent bi ci saxaada amul mu ànd ak moom ba yonent bi dem ba mission ba jot Cheikh El Hadj Malick continue ànd ak moom ci réew te jamono yooyu moo ko gënoon jege ñëpp waaw ku ñuy tudd ni jege woon nga yonent bi ci saxaaba wala dara Cheikh El bi Malick moo la gënoon jege yonent bi ndax mi ngi woon ci ruuram ba bi yonent bi dee xare mu ànd ak moom ba yonent bi génn àdduna mu continuer ànd ak moom ca morgue ba ba nu denc yonent bi mu ànd ak moom ca bàmmeel ba ba yonent bi dellu juróom-benn asamaan mu ànd ak moom ca juróom moom am na loolu ci dund yonent bi <laughs> ma rasul ne xam na yonent bi ma ni amul dina ma jaaxal waaw te xaw ma dund xay bu waaye dund saxaada moom amul benn minute bu mu àndul ak yonent bi yonent bi gane na àdduna mu ànd ak moom ba yonent bi jóge fi ba ñu denc ko ci bàmmeel mu ànd ak moom ca bàmmeel ba ba yonent bi dellu juróom benneelu asamaan mu dellu juróom benneelu asamaan ànd ak moom te loolu jotewul ak dara ak lu mu dund ak yonent bi quatre cent ans ca waaw ci wàllu lumière dund na ak Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani soixante six ci wàllu ruuxu waaw na ak Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani moom it ci wàllu Xayba juróom benn fukki at ak juróom benn ci wàllu ruuxam ci wàllu ruuxam maanaam boo ci dund ak Mawlaay Cheikh de Tijaani mooy cheikh moo lay nàndal lumière moo lay nàndal lumière am gis nga moo tax boo xoolee sax dund saxaadam di nga di nga ko xaw comprendre ndax Cheikh El Hadji boo seetee dafa ñëw rek ci bind mu féete ci yonent bi mu féete ci yonent bi gis nga na mu ci féete parce que lu tax àndam ak yonent bi ci lumière ca xay ba dund na ak moom 400 ans dund ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ca xay bi ci wàllu ruuhu 66 ans dellu ànd ak yonent bi ci saxaadaam ba yonent bi di fi jóge mu ànd ak moom ba yonent bi di dellu juróom-benneelu asamaan waaw te loolu jotewul ak dara ak xeetu wëli bi mu bokk nga xam ni ñoom ñooy wëli yu Kunûz waaye Cheikh Al Hadj def na tarbiya ci ñetti alam yoo xam ni benn bi ci xay bu la nekk ñaar yi ca alxaysiya la nekk benn alam bi nga xamee ni ca la defee tarbiya ca alxaysiya alam ba ca jiitu mooy alam ba nga xam ni ca la ñuy dénkaane wàllu zikr dafa am alam yoo xam ni soo ca demee wàllu zikr comme ni ñuy waxee ni nit ki dafa mën zikr boo bëggee rawante ci wàllu kurus foofu lañ lay yóbbu soo demee alamu zikr lañ koy wax waaye li nga fay fekk mooy malaaka yi nga xamee ni kenn ku ca ne ci ñoom lu mu am ci loxo ëpp na fukki junni kenn ku ci ne loxo bu nekk ci malaaka yooyu lu mu am ci baaraam ëpp na fukki junni baaraam bu nekk mi ngi téye kurus goo xam ne fukki junni per la ñooñu ngay rawante waaw alamu zikr lañ koy wax benn ba ma nga ca alxaj waaw Cheikh Al Hadj ñëw na ci alam boobu am fa di jours juróom-ñaar fukki fan rawanteeg ñoom ci zikr bi ñu paree ñu name ko mu raw leen ci ban zikr la doon rawanteeg ñoom ci salaatul fatiha loolu lu jafe la juróom-ñaar fukki fan tëju na ak malaaka yooyu ca alamu zikr ba ca alxaysiya raw leen ci zikr ci zikru salaatul fàtte te ñooñu waxumu boo demoon euh, bu ñu bu ñu commencé woon rek yow ba moytul doo àggal waaw loolu moo tax mu daan wax ni moom bu waxee salaatul fatiha dafay mel na yàlla tif la wax ndax gaaw ci moom kon raw na ay malaaka yoo xamee ni dañu leen di nomine ci wàllu rawante ci zikr moom Cheikh Alhaaji Malick raw na leen te mu leen rawee ca alxaysiya beneen bi alam bi nga xamee ni dañu dañu koy tuddee wàllu xam-xam xam-xamu lumière xam-xamu lumière boo xam ni ba léegi te xam soo demee ci kaw dañu ko xaaj ñaar benn boo xam ni xam-xam la buy féete ci wàllu denc bi yàlla benn bi ñu ni xam-xam la buy féete ci maanaam décrypter turu yàlla yi comme turu yàlla yi seen leer soo demee ca xay ba dañu seddale xam-xam yi ñaar dañuy wax ni xam-xam bii mooy xam-xamu leer bu jëm ca wàllu dencu yàlla ya bii mooy xam-xamu leer bi jëm ca wàllu li constitué yàlla maanaa tur ya waaw Cheikh alam bi nga xamee ni fa la ñuy jàngatee fa la ñuy jàngatee turu yàlla yi benn bu ca nekk leer ga mu am benn bu ca nekk la muy jëriñ benn bu ca nekk degré mystique ba moom Cheikh El Hadj dund na ca alam boobu junnee at ba noppi ñoom fa doon dundal dundal ñëpp moom moo leen doon jàngal xam-xam boobu moo tax am na kilifa gu mag ci nitu yàlla gu ma seetee nii moom ci wàllu turu yàlla lu mu la ci wax bu yóbboo nga jàpp ko xam ni téere la waaw ndax Cheikh El Hadj Malick turu yàlla amul lu mu ci xamul amul secret bu mu ca xamul amul lumière bu mu ca bu mu ca amul lumière bu mu xamul lu ko constitué amul lumière bu mu ca àttan mooy ñaareeli alam bi nga xam ni def na fa tarbiya ca alxaysi benn alam aussi muy alam bi nga xam ni bu yaatu la ca xayb mu def fa tarbiya raw leen moom ak ulul azmi mina rusuli la woon yonent bi nga ci bopp yenent yàlla instant ma nga fa yenent yàlla Nuux ma nga fa yenent yàlla Ibrahima ma nga fa yenent yàlla Moussa ma nga fa waaw natt nañu kenn ku ca nekk sa degré lumière maanaam sa degré lumière ci sa loxo comme ni ma waxoon ni wali dafa am xeet yoo xam ni seen lumière fi mu toll tax na sax kenn du leen nuyu te amuloo njàpp day dem ba sa degré lumière ci sa loxo day mel na alquran Cheikh Al Hadj Malick moom ulul azmi mina rusul yonent bi dong ci bokkul nattante nañu degré lumière kenn ku nekk sa loxo la mu tollu ca leer mu raw ci Moussa raw ci Ibrahima raw ci Nuux raw ci Insa ca alam ba ca xay ñoom ñëpp mu raw leen ci degré lumière ci degré lumière loxoom nu mu mel bokk na it ci moom Cheikh Al Hadj ci dundam ci nga xamee ni mën nañu ni yu néew la yu néew la wël yu tarixa bi di ko am mooy Cheikh Al Hadj Malick zikr na salaatul fatiha ca xay ba zikr na salaatul fatiha ca xay ba ba Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëw ci moom ni ko nii nga zikkaree salaatul fatiha ci xay ba lim ba nga ci def ak tolluwaayu lumière ba nga ca toll am nga droit versatile Cheikh ko ko wax. Cheikh Al Hadj na salaatul fatiha xay ba ba Cheikh ñëw ni ko nii nga zikkaree salaatul fatiha ak jamono yi leer yi nga am ak sa tolluwaay am nga droit versatile. waaye mu ni ko du ma ber mukk sama tarixa di gis ku ma mën su ma mënee ñëpp ber sama tarixa <laughs> waaye du ma ber tarixa di gis ki ma mën ki ma mën kenn la muy yow moo tax sa ginnaaw lay topp wax jooju Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani baamtuwaat na ko ci moom Cheikh El Hadj dund na ci monde shahada nekkaat Tiwaawan di zikraat salaatul faate bi Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani dellu si waat deuxième fois waxaat ko fekk na ko Tiwaawan ni ko bu la neexee nu julli timis nga woo mbooloo yépp ni leen bis ni tey am nga dog ci salaatul fatih am nga sindigal ndigal nga sa tarixa ci biir salaatul fatih Maodo rejeté waaw kon Cheikh wax na ko ko ca xay bi wax na ko ko ca Tiwaawan mu rejeté te Cheikh dafa ne ko am nga droit maanaam jël salaatul fatiha bi jox ci taalibe yi jox ci lim bu leen soob utiliser salaatul fatih bi jox leen ñoom ay dog waaye muy sa tarixa bopp ber sa tarixa ci biir tarixa Cheikh Tidiane Cheikh Al ko ni na ma ko bañe woon ca xay bu noonu laa koy bañee ci monde shahada waaw na wëli yu toll foofu ci wàllu garaat beneen bi mooy Cheikh Al ci wàllu sell teem bokk na ci wëli yi nga xam ni soo doon ni numéro un ni deux moom ngay wax trois ci wàllu sell waaw ci wàllu sell am na particularité boo xam ni néew na wëli bu koy am mooy Cheikh El waxuma la yaramam mais yéreem du lakk Maodo yéreem du lakk tey boo jëloon yéreem waddal ko ci ànd waddal ko ci safara yére bi du lakk waaw waxuma yaramam mais yéreem du lakk bokk na ci wëli yoo xam seen yére du lakk mën nga nekk wëli bu mag sa loolu du si dara mën nga nekk yére bu mag sa bagage lekk loolu du si dara mais Cheikh El Hadj bokk na ci wëli yooyu yoo xam ne seen sellte tollu na foo xam ni ñoom seen yére du lakk waaw kon gis nga loolu suñu ko suñu ko tuddee ci wàllu wëliyu mën nga ni euh, degré bu rëy la waaw ndax waxuñu sa yaram ndax sa yaram mooy matière bi matière bi lumière bi nekk mais mu dem ba bokk ci sa ay jëfandikukaay ci sa ay bagage ba ñu ni yére ba ngay sol même yére boobu du lakk bokk na ci cadre boobu moom Cheikh Al Hadj beneen wàll bi mooy xaadir xadir nga xam ni ñépp xam nañu ni eh, yonent la ci wàllu hikma waaw su histoire am ñu bari xam nañ ko digganteem ak yonent yàlla Moussa ba mu gis Moussa ci baatin bi ba wax ak Moussa ba wax ko turam ak lépp yonent boobu nuy wax xadir Cheikh Al bokk na ci ñi ko jàngal balaa muy ñëw xadir moo tax benn góor ni ma pourtant doon ko laaj xadir ndax yonent la mu ni ko baax la <laughs> ma ree ni moo yëy ndax tëjoon na ak xadir 77 jours di ko jàngal ci xuntu moo xam ni xuntu baa nga ca xay te lan la doon jàngal xadir mooy ilmul laduni <laughs> ilmul laduni la la doon jàngal xadir diggante communication ak asamaan Cheikh Alhaji Malick tarbiye na ci xadir 77 jours waaw moo tax moom <laughs> xëy na ñu bari sax ñoo ko xamul mais <laughs> du ko nii tëkkaleeg nit kooku du ko nii tëkkaleeg nit seulement dundam moom moo ko moom moo ko couvrir waaw waaye xaj ndax xadir yonent la xadir yonent la ba léegi mi ngi yore mission mission bi ñu ko dénk mooy jën bu jën bu mag boo xamee ni euh, jàpp nañ ko wala jën bu mag boo xam ni teer na ci tefes gi de dina taxaw ci euh, jën bi ni allahu ba def ci takbir ba noppi soo koy demaat foo ko romb ci biir géej ba léegi ma ngay dox sol jàllabeem bu weex waaw mooy mission du fi jóge tànk àdduna tukki woon Cheikh El Hadj Malick tëju na ak moom ca benn xunt ca xay xayb pendant 77 jour mu di ko jàngal almul la danuy jàngal na ko xatir kon degré boobu moom mu am ci côté lumière ba boo ko jëlee maanaam li mu am ci yonent bi nga jëlit li Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëw ci moom ñaari yoon ñaari yoon wax ko ni ko na sañ ci tarixaam lu tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani wax ko mu sañ ci tarixaam mooy dafa gis lumière ba mu amee ndax cheikh la mu jàpp mooy lumière mooy diriger mbooloo loolu la cheikh jàpp Mawlana Cheikh Ahmad Tijaan li mu jàpp mooy lumière mooy diriger mbooloo kon bu demee ba wax Cheikh El Hadj ñaari yoon waxuma benn benn kese doyoon mais mu wax ko ñaari yoon ni ko am na ndigal ci salaatul fatih pour mën ber yoonam Maodo rejeté offre ba mooy wane nii dafa gis ni motal na motal na lumière bu ko permettre mu mën a diriger mu mën a diriger mbooloo mu nekk mais mën diriger nit ku nekk waaye ba léegi bu ñu doon tudd ci ngëneelam ñu ni yow yi Cheikh El Hadj am nga xam ni suñu doon wax wàllu yiw sax mën nañu ni eh, ñu façon wëli yooyu loolu dèjà nu tudd ci seen dund ci leer tax na seen yiw kenn mënu ko natt seen yiw kenn mënu ko natt waaye Cheikh El Hadj bokk na ci euh, bu yoo xam ni am na ñu ngëneel gu tolloo buy traversé juróom-ñaareelu asamaan muy basaatul jalaal yàlla day sant bépp malaaka bu fa nekk mu rukk Cheikh El Hadj Malick ci leer may na ko bu demoon tey basaatul jalaal mu yendu fa jógewu fa tànk ñibbisiwul wàcc juróom-benneelu asamaan malaaka yi nekk basaatul jalaal du ñu jóge ci seen rukkoo te ordre ba direct ma ngay jóge ci yàlla <laughs> yàlla mooy sant malaaka yi nekk basatul jalaal ni leen rukkoowal leen sama jaam bi nga xamee ni bokk na ci sama sopp yi gën a sell te ëpp leer te te te dégg ndigal ci ci jaamu ma kon moom tey su demoon basatul jalaal tey mu yendu fa ci suba huit heures la fa dem mu ni dafay am fukki fan dafay am soixante-dix jours malaaka yi rukkoo woon te basatul jalaal du nu siggi lu dul Cheikh Alhaaji Malick wàcc ba juróom-benneel asamaan lan moo ko ko may cëram moo kooku cër la bu mu am ci wàllu lumière eh? waaye bu ñu xoolaatee bu ñu bàyyee cër bi mu am ci wàllu lumière ci digganteem ak yàlla kooku gis nga digganteem ak yàlla la xam nga suñu waxee dund ci wàllu leer dañ lay tuddal digganteem ak yonent bi tuddal digganteem ak yàlla ndax da nga koy résumé rek waxoon naa suma sañoon waxtaan yi du wees 30 minutes wax la it digganteem ak Mawlaay Cheikh Ahmad yi loolu moo tax nu koy changé léeg leen wax digganteem ak yàlla ñëw ci digganteem ak yonent bi ñëw ci digganteem ak Mawlaay Cheikh Ahmad benn bu ca nekk dañ cay jéem cof rek waaw ndax ñoom kenn mënul jeexal seeni cër na muy toll ci wàllu yàlla lu tax mooy seen dimension foo mu toll ñoom sax xam nañu ni jëmmu mënu ko àttan waaw ñoom xam nañ ni jëmmu mënu ko àttan moo tax bu ñu xoolee digganteem ak Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani moom amaan na beneen particularité moom Cheikh Al Hadj Malick particularité bi mooy wasifa barzaqul maktoum moo koy diriger mooy dirigé wasifa barzaqul maktum xam nga loolu rek doy na cër ah. heure boo demee barzaqul maktum ñuy muy taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani yi génn àdduna fa nii daje ca jardin du luxe ba toog di wasifa wasifa suba ga bu jotee bu ñu lalee malaan ba ñëpp dañ naan tekk Cheikh El Hadji ngay dégg mu ni fa bi ismi ismullahi azam bi xadarati cheikhina wa wasilatina ila rabbina sayid Cheikh Ahmad ibnu Mouhammad Tijaani Chérif radiallahu taala anhu ni ñu jàng wasi suñu paree mooy ñaan wala mu joxe kenn mu ñaan waaw kay loolu doy na ci su wasi fa ngoon ba jote te it moom seexal El Hadj Malick moo koy dirige waaw xam nga nettali xut bu dundal ci wàll leer lu tax mu neex ma li ma leer ni ma ko nettalee si la Maodo di gën a kontaan bu keneen nettali xam nga lu tax bu doon taalibee ma ko doon nettali dañuy wax taalibee ma xam nga loolu moo tax ma ni Maodo dama nettali ko si lay gën a kontaan ndax du ma taalibe su ma ko nettalee kon dafay wane ni noonu la amee waaw su doon keneen ko waxoon ci ku bokk Tiwaawan dañuy wax i taalibeem la moo tax mu ni moo koy diriger waaw dundam ci wàllu leer moom mooy diriger wasifa ba barzaqul maktum waaw moo koy commencé wasifa suba su ñu demee ba tëj moom mooy joxe ndigal ni kenn na ñaan wala moom mu ñaan kon bu doon bu doon loolu kese diggante moom Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani la mënoon nañ ni loolu doy na jël bu ñu gëstoo it ci dundam ci wàllu leer moom Cheikh Alhaaj Mali Maodo maîtriser na fukki xam-xam ak ñeent fukki xam am ak ñeent muy suñ doon ko wax ci français dañuy wax ni quatorze jours ci xam-xam xam-xam yoo xam ni benn bu ca nekk xam-xamu alxaysiya la du xam-xamu xëy te la ma gën a yéem mooy xool naa ci dun saxadam laaj ñenn ñu waxu ci dara ci benn ci ci ci yooyu be waxu tudd ci benn maîtriser na fukki temu mu xam-xam ak ñeent yoo xam ni ca alxaysiya la jóge yoo xam ni xam-xamu lumière pure la wax romb na sax xëy bu ma nga ca alxaysiya te dund na ba génn àdduna te tuddul ci xam-xam yooyu benn loolu tamit doy na karaamati waaw mm-hmm. ah. loolu doy na karaama wali bu mokkaloon benn xam-xam ci alxaysiya rek mën nga koy bàkkoo abada moom mokkal na ca 14. dund na ba jóge fi ci monde saxaada la gën a yéeme mooy tuddul ci yooyu benn tuddul ci xam-xam yooyu benn ko loolu dèjà doy na kéemaan beneen bi mooy Cheikh Al Hadj nekk na nit koo xamee ni ci dundam ci wàllu lumière soo gëstoo dundu saxaadaam ca début ba dundu saxaadaam ca début ba ba ba ñu nee jóge na fi ba ba muy dellu ba ba muy dellu ca yàlla amul benn jour boo xam ni walla benn segond boo xam ni wala benn minute boo xam ni yaramam toog nakati zikrul amul soo nattee dundi Maodo nga ni bi mu fi bi mu ganee àdduna di di liir nun ni ñu koy waxee ba muy mag ba muy dem bay wuy ji boroomam amul benn seconde boo xam ni jamono dox na ba fekk na nekkul ci zikr wala yaramam zikrul amul kon yaram mën nañu ni communication ak xayb ba mu juddoo ba mag ba ba muy wuy ji boroomam amul benn jour bu communication boobu daggee amul waaw amul benn jour boo xam ne communication bi dagg na amul waaw Cheikh El Hadj ba léegi dundam ci wàllu leer bokk na ca xutbu yu néew ci xutbu yu ñoo xam ni fu guddi laylatul xadr jotee guddi laylatul xadr fu mu jot jotee alxuraan dafay jël jëmmam jëmmam comme jëmmu alxuraan ni mu mel yomal xiyam bu ko ñenn ñi dee gis ndax du ñëpp koy gis alxuraan muy baqara ba naase dafay jël jëmmam ñëw ci Cheikh Alxaaji Malik moom jëmmi alquran laa wax de jàng moom ci boppam baqara ba naasi tafsiral ka moom baqara ba naasi bégale ko Maodo Maodo am na loolu loolu moom defe naa jarul ngay yor téere waaw guddi laytu xadar bu jot waxuma ni tey ñëw ndax dafa neex baat wala malaaka leen yebal mu jóge asamaan alquran yu ñëw ak jëmmam muy baqara ba naasi moom alquran ci boppam mu jàng moom baqara ba naasi kon mooy jàng boppam mu pare mu tafsir moom Baqara ba Naasi mu béggale ko Cheikh El Hadj Malick ci guddi lay tuxaat waaw ndax lu tax ndax lu mu naa naafilee chaque jour loolu nag alxuraan delloo wi njukkal ci moom monde sahal te li gën a yéeme Maodo mi ngi toog alxuraan mi ngi ñëw alxuraan bi jàng na boppam tafsir na boppam te Maodo waxul kenn alxuraan ñëwoon na di ma di ma béggal <laughs> loolu tam ci karaama la bokk loolu ci karaama la bokk daf lay wan ni moom boo gëstoo dundam ci wàll da nga ci gisaale ñaari euh, façon beneen façon bi mooy da nga ci gisaale degré de bi mu am waaw da gis degré de sagesse bi mu am maanaam da gis ni kon ndekete ñi nga xam ni lu leen laal tuuti rek ñu bind téere ni am naa naa nangam koor bawdu bu bindoon kenn dootul wax xanaa ku bind kay ba bind ni alquran a ñëw jëmmi bopp jàng ma man baxara ba si firil ma baqara ba naa si moom alquran xanaa mënoo ni kon nee nee firi ba dëggale ma ko def ci guddi lentul xat am na lool moom moom kon gis nga suñu xoolee diggante relation ak alquran kon dañuy gis ni moom it relation la boo xam ni même su alquran doon am kóllëre wala alquran doon am xarit mën nañu ni kon moom mooy xaritu alquran ndax moom la alquran di defal lool te alquran ni mu nekkee téere yàlla ak ni mu toll su fekkonte ni dem na ba jël nit mu jaral ko moom jëmmi alquran mu jóge asamaan wàcc ci si du shahada ñëw jàngal ko boppam baqara ba naasi ba noppi bégal ko ci tafsiral ko boppam ba mu ba mu xam ni li alquran bi di tekki dëgg-dëgg ca xaqiiqa mu ni ko yow laa koy bégale dellu loolu bokk na ci li gën a rëy ci pouvoir yi yàlla di may kon bu nekkoon si wàllu xam-xam xam-xam boo xam ni dafay féete alquran mën nañu ni Cheikh Al Hadji Malick dafa ca raw ñëpp lu tax mooy moom du dañu ni di wa ko tafsir alquran alquran moo ko tafsiral bopp su dee ci dégg kàllaama alquran nu ni neexit bi wala galañu alquran wala xaraf yi mën nañu ni moom moo ca raw ñëpp ndax lu tax moom alquran moo ko jàngal boppam waaw maanaam alquran ñëw ta taswit boppam bégale ko waaw kon loolu bokk na ci degré yi gën a rëy léegi nag suñu xoolee ci degré ak njàmbaar njàmbaaram ci wàllu kurus njàmbaaram ci wàllu jàmm yàlla njàmbaaram ci wàllu téere Mawlaay sama Ahmad Tijaani toog na asamaan nu daje juróom-benneel asamaan yonent bi mi ngi toog ñenn ci axtaab yi ñu ngi toog woo na ñenn ci malaayika yi ñu ngi toog nu seede Cheikh ni su ma doon lim samay jàmbaaru tarixa dama naan benn ñaar ñett ñeent ni ni Maodo wala ma ni benn ñaar ñett ni Maodo <laughs> Cheikh ko <laughs> kon kay doy na Cheikh nee su doon lim jàmbaaru tarixa dafa naan benn ñaar ñett ni ñeent ni Maodo wala mu ni benn ñaar ñett ni Maodo te bi si la yàlla bokk ci la yonent bi bokk waaw bu doon nit ah, waaw loolu kay c'est normal yàlla ci tarixa bi la bokk yonent bi ci tarixa bi la bokk cheikh ni bu doon lim ca jàmbaar ya dafa naan benn ñaar ñett ni Maodo wala mu benn ñaar ñett ñeent ni Maodo waaw kon gis nga Cheikh Al Hadj May jàmbaar boobu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani nawee ko mooy jàmbaar yi ci wàllu kurus muy benn waaw Maodo Kourous amul benn wëliyu bu ko cee mën amul waaw amul benn wëliyu boo xam ni mën na Cheikh El Hadj ci wàllu Kourous amul waaw ndax mën ci wàllu Kourous ba wëli bi récolté na lii si leer wala mën si wàllu kurus mooy mooy yore Kourous suba ba ngoon Cheikh El benn wëliyu mënu ko ci Maodo bu yoree téere Kourous gaa ngi ci loxo càmmooñam bu téye téere ji ci loxo càmmooñam Kourous gaa ngi ci loxo ndeyjoor noonu lay dëkk toute la journée. bu yoree téere nii ci loxo ndeyjoor kurus gaa ngi ci loxo càmmooñam bu yoree téere ci loxo càmmooñam kurus gaa ngi ci loxo ndeyjoor yow boo àndeek moom zikkër zikkër zikkër ba tëdd moom guddi gi ma ngay naafile bu naafilee pare ma ngi ci kurusam kon gis nga loolu benn wël yu mën ko ci kurus loolu moo tax sax mu fés te même ngay gis photom sax muy gàddu kurus parce que noonu la mës di mel waaw bokk na moom Cheikh Al ci dundam ci wàllu gëm zikru salaatul fatiha Maodo du zikr mukk salaatul fatiha te loolu sax man defe naa moom kese xanaa moo ko moo ko moo ko mën ci wëli wi Maodo du zikr mukk salaatul fatiha wàcce loxo du ko def buy zikr salaatul fatiha nee na day dundalaale loxoom cëram wane doole salaatul fatiha na mel tax na fu mu gàddoo kurus mooy na ngay gis ci pot bi day yëkkati loxo nee na du zikr mukk salaatul fatiha wàcce loxoom boo gisee mu wàcce loxoom rek mi ngi zikr leneen waaw <laughs> waaye salaatul faati fu mu koy sikkar yëkkati na la fa kon Cheikh El Hadj Malick du sikkar mukk salaatul fàtte di wàcce loxoom loolu dëgërël boo xam ne am na ko mu doon lu nekk exception moom ci wàllu wëli yi waaw beneen bi am na signe de sagesse bu nekk ci moom signe de sagesse bi mooy Maodo dafa ni doonte loolu yëpp am na ko cër ci wàllu leer donte loolu yëpp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani jagleel na ko donte loolu yëpp am na ko ci yonent bi donte loolu am na ko ci yàlla su sañoon moom ñëpp gën ko mu topp seen ginnaaw xam nga da ngay ku nekk naan soo sañoon gën ñëpp mm-hmm. Cheikh Hadji Malick bu sañoon moom ñëpp gën ko bu sañoon moom ñu coow ñëpp bu sañoon moom wuti ñëpp bu sañoon moom ñu gëm ñëpp ñu bàyyi ko moom mu topp seen ginnaaw waaw <laughs> te moo jar a gëm jar a wuti la mu am waaye nee na bu sañoon ñuy woote ñëpp mbooloo nañ leen leen dem toppi te nu bàyyi ko moom mu toog ci ginnaaw moom daal nee na tànk mi ngi kurusam tànk mi ngi ngëm-ngëmam ci yàlla tànk mi ngi wóoloom ci yonent bi tant que mi ngi pas-pasam ci Mawlaay Cheikh Ahmad am na lépp bu ñëpp ñëwee yi mu manqué ci yooyu benn amul daal loolu la waaw kon moom na mu nekkee philosophe dafa ëpp ni mu nekkee philosophe ci côté lumière dafa ëpp parce que li nuy jàngale dundam dundam ci wàllu lumière la mais Cheikh Al Hadj Malick suñu nattoon dundam ci shahada ni mu ci nekkee philosophe nekk ci intellectuel da ngay dem ba da ngay xeeb ñeneen ñi nga doon jàppee ay philosophe parce que dund gu nekk tëral na ko teg na ko ci yoon doxal na ko te kenn déggu ci kenn waaw suñ doon xool ci wàllu jàmbaareem ci shahada rek ci shahada jamono yi ñuy waxee ci Sénégal ni tubaab yi ñoo fi nekk tubaab yi noo nekk Sénégal tubaab yi nga xam ni même nodd daf leen daan déranger ci jamono yooyu tubaab yi nekkee ci Sénégal nodd di leen déranger ci la Cheikh Al samp zawiya seen base seen base fan Ndar fii ñëpp xam ne base tubaab yi dama laaj magu Ndar yëpp tubaab yi ko waroon ak seetaan ñu defa ni fa lay yem mu samp seen base bunti Dakar gis nga Dakar soo toogee ci zawiya bi di wasifa da nga gis oto yi oto personnel ak oto ministre yi di la romb waaw base tubaab yi ñu waxati mu samp nag seen dal nag dali tiwaawan nag te diggu fa tubaab ya tànt mu samp ci fa zawiya waaw zawiya ba ñuy julli tubaab bi noot lañ doon maj du julli yamatul ni ci ñu julli mais bool si di wasi nu defa benn la nu di ko def suba ak ngoon moo tax gis nga réew mi dañuy wax rek xamul sax li xaw mhm. yooyu kañ la woon yooyu balaa 1922 la woon Cheikh El Hadj Malick 1922 la fi jub balaa 1922 nga xam tubaab yi nekk Sénégal fees fi dell ci lu doon noddu ci lu doon noddu tubaab yi noddu lañu daan bañ dégg nuy dégg noddu si loonu di julli yamuñu si di julli nuy wasifa suba di wasifa ngoon képp ku fi am jumaa ju pare jamono jooju wax ma déedéet chiffre yaa ngi fi képp ku ni ci jamono tubaab bi am na jumaa ju fi pare ba nu koy julli wala nu koy nodd wax ma jumaa ju man jumaa yëpp xam naa tañ lañu pare eh, mais date yaa ngi fi boo boo tijjee ñu wax ma xam nga réew mi léegi <laughs> nit ñi doon waxatul li xew wax maanaam wax li si baax mooy nga teg ko ci preuve maanaam nga am preuve à bi nga ni nga ni wax naa mi ngi nii mhm. nit yi tijji histoire mu gis loolu mooy wax wax li si baax mooy nga wax nga ni nii la tëdde intellectuel yi jàng yëpp nu clique internet ñu xam ni li nga wax moo loolu ma wax kay ñeme naa ci défi ñëpp dama ni jamono ji Cheikh Al Hadji Malick sampé fii ci Ndar zawiya ba nuy nodd ci nopp tubaab yi di jug di julli suba nu suba kese la def ndax tubaab yi di nuy wasifa ngoon mu samp zawiyaam diggu pencu tubaab nuy julli di nodd di wasifa di wasifa suba di wasifa ngoon mu sampaat ka Tiwaawan julli di wasifa di jooju képp koo xam ni sa jumaa pare woon na ba nga noddoon wax ma boo ma waxee sa jumaa kañ la pare ma wax la 1900 ba mu pare bañ koy inauguré ba ñu fa ñëwoon ba ñu fa teewoon ñëpp xam naa leen moom tey même boo wax ñu fa teewoon kon Cheikh El Hadj Malick jamono jooju jamono jooju laa wax wax bàyyul ba Sénégal am indépendance bu soobee am jumaa de ba jamono jooju la taxawal zawiya ya muy julli di wasifa suba di wasifa ngoon kon defe naa réew mi liy wax sauver l'islam bu amee ku fi sauver l'islam sauver fi tarixa bi Cheikh El Hadj Malick la waxuma ko ngir bokk ci tariqa tijaniya dama ko wax ngir preuve à la l'appui maanaam dafa leer képp ku jàng daf daf koy gëm mhm. waaw jamono jooju zawiya baa ngi fii di julli suba di julli ngoon nuy wasifa suba di wasifa ngoon waaw kañ la fi Maodo jóge 1922 la fi jóge 1922 kañ la du léegi waaw kenn xamul kañ la waaw toog nañu ay fanweeri at ki lu topp fanweeri at ak juróom-ñett Sénégal soo koy wax ay waxi indépendance waaw boobu la zawiyam bi nekk fii nuy julli di wasifa mu njëkk liggéey ci côté ci côté philosophique ci côté philosophique parce que euh, maa ngi rappelé wu sax bi gouverneur général bi ñu ko bindee bi ñu ko bindee courrier ni ko euh, benn bu daal moo nekk Sénégal loolu la tubaab yi wax benn marabu moo nekk Sénégal muy El Hadj Malick Sy mais heureusement am na nu sens parce que moom marabu bu sage la jotewul a kenn dara du indi benn problème jàppul daal bi gouverneur général demee ba jot rapport yi ak li Maodo liggéey dafa ni yéen kay kii ngeen nag waroon sax gën a attaqué kii kii kii ñun nodd lan daan bañ kii samp na ñetti jumaat dégg nañu yamuy si nodd mais dégg nañu ña ngay def sax léegi leneen loo xam ni ca rajo yi lañ koy def te muy wasi te boobu ñu koy def xam nga wasifa mënoon nañ ko mënoon mënoon nañ ko di defee nii sans rajo mënoon nañ ko di defee ci baat bu suufee sans sans ñu dégg rajo bi du ci farata Cheikh Al Hadj Malick bëggoon ñëpp dégg ko ba tubaab yi xam ni moom mu ngi liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi di liggéeyal Cheikh Tidiane moo tax mu ni nanu yooxu lu nu mën suñu amee haut-parleur nañ ko takk fii di yooxu nu di dégg nu xam ne nu julli ji dee farata lii noonu la nekkee farata yi incha te loolu yëpp def na ko ci defin goo xam ni mi ngi toog ci réew mi demul fenn mu di ko def ñëpp di si teg seen bët ñëpp di ko gis waaw Maodo demul fenn fii la toog nuy julli muy nuy wasifa nuy wasifa mu dem Dakar ca Zawiyam nuy julli muy julli muy wasifa muy wasifa ñu dem ci waawoon ca nopp tubaab yi ñuy julli muy julli nuy wasifa muy wasifa te kenn mësu ko fekk attaque parce que lu tax waxuma cër ba mu yore waaye côté philosophique bee tax beneen bi mooy mu jaaxal tubaab yi loolu sax maa ngi bàyyi tuuti euh, dundi li yaram di wax ci dundi saxaada waaye dundi saxaada bi dafa am solo ndax léegi Sénégal dana bëri wax yu bëri dañuy wax xam sax ni histoire demee mu jàngal tubaab yi wàllu decentralisation Maodo moo ko jàngal tubaab Maodo moo jàngal tubaab yi décentralisation comme ni ñuy def ba li ñuy dajale lii yëpp fii nu tasaare ko mu leen loo diine ci jiitu na ci diine jiitoo mu jël Seydi Hadji Rawaan yóbbu Paal jël Sëriñ Hadji Touré yóbbu Fass Touré jël ñoom euh, góor gi àllum ba bungum ba jël ñoom biraagay bu nayoo be ñoom moo leen tasaare ba fenn foo dem ci ci ci Sénégal nga gis fa koo xam ni toogal naka fa te ka fa toogal la gën yéene mooy day tabaxloo kooku juma kooku tabax juma yore daara di jàngal alxuraan ñuy nodd daal ah, tubaab yi bañ dégg nodd ñuy nodd di julli di wësi moo tax bi ñu mujj def recensement ndax gars yi sax temps yi ñu ngi def recensement ndax dañ ni comme léegi Sénégal wax rek la nañ def recensement nu ni nanu calculer yenn jàkk yu Maodo taxawal ñu calculer ni Maodo taxawal na 427 jàkk ci réew mii di Sénégal sa ni kay li bay doon di waxoon dëgg la Sénégal loxo Maodo ci biir lu ko mooy gaal ju dem kon kay gaal gi jéeg yëpp yëpp quatre cent vingt cinq mosquée taxawal na ko gis nga mën nga gis nag ni taxaw benn jàkk rek di di baax Maodo quatre cent vingt sept mosquée yoo xam ni mooy ci yu nu jot a recensé gu wax yu si virage yi te ñëpp nag mu teg leen ci benn yoon yoon ba mooy lan mooy jàmbaare loo leen ci diine Mm-hmm. man li may wax yëpp preuve preuve daf ci am. soo bëggee déglu preuve boobu déglul période du gàmm lu mënta xew senegal di nga dégg noor du fajar di nga dégg wasifa lu mënta xew Sénégal laa di nga dégg noor du fajar di nga dégg wasifa gàmm day mel na jàkk yi kenn soo ne ana ñu nekkoon jàkk yi ñun xanaa ñoo ñoo gàmmu ji soo leen soo déggaatee jàkk yi yëngu rajo ba tàkk ñoo ñoo dellu si waaw mooy jàmbaar yi sëriñ Babacar Si daan wax ñooy xëy ci tool yi ñoo ci gont waaw ni bis boo déggul tool ba yëngu mooy jàmbaar yee sonn wax na dëgg kon dund Cheikh El Hadj Malick rek maanaam ci côté eh, ni mu dundee ak ñi nekk ci réew mi jàngal na leen non seulement science boo xam ni permettre na islam eh, yaatu ci senegal waaw permettre na islam yaatu ci Sénégal parce que suñu jëloon eh, dund saxaada bi li Cheikh El Hadj Malick jàngali ci réew mi maanaam réew mi dama bëgg wax ni ñi fi jàng xam-xam yépp ci téere bu leen Maodo jàngalul ki Maodo defar moo leen jàng moo fi samp ay institut ñi fi jàng téere yëpp ñi fi jàng téere yëpp ci réew mi su fekkente ni Cheikh El Hadj Malick jàngalu la ki mu fa teg moo la jàngal soo ko bëggee gëstu nag gëstul nombre yi nga xam ni ci këru diinu yi ñu tudd ñu ni fa la ñuy jàng xam yan moo ci gënoon siiw fas nga daal dégg Fass Touré nga daan dégg ñu ne ku bëgg mokkal alquran demal Fass Touré Fass Touré boobu ku fa nekkoon Serigne Hadi Touré fa nekk waaw El Hadj Abdoul la jàngee alquran ci moom kon yàgg na kon daara juddu léegi la nee El Hadj Abdoul Aziz Sy 97 la génn àdduna te am na 93 ans fa mu jàngee alquran ca Fass Touré kon war nga xam Fass Touré du léegi mm-hmm. waaw moo fa nekkoon Serigne Hadi Touré ku ko fa teg Cheikh El Hadj kon gis nga ni. ñii jàng alquran ci réew mi yëpp. ñiy jàng fi islaam ci réew mi yëpp Cheikh Al Hadj moo leen jàngal wala mu yabal nit kooku jàngal leen kon gis nga moom euh, façon façon melokaan nga mu bëggee woon dund nag ñu bari léegi moom la ñu miinul Maodo dafa ni woon dund dund àddunaam du tegu ci wax waaw <laughs> Cheikh Al Hadj dafa ni woon su ma doon am credo damay wax sama credo mooy sama dund ci Sénégal du tegu ci wax ci jëm rek lay teg ñu ni ko waaye léegi góor gi bu tegoo ci jëf xanaa après dañ koy fësal muy damay wax jëf bi it ki nga xam ni mooy nangu jëf di yàlla ni ko bu mu fees bàyyil ba ëllëg bàyyil ba ëllëg su ñëpp taxawee yomal xiyaam mu fees nag waaw ku nekk gis loolu moo indi waxam ju mu daan wax ni di dem ca làmbu jëy bàkku jóge ca làmbu jëy bàkku moo ko gën wóor loolu moo taxoon nit mu daan wax ni bàyyi leen naan di waraw te course bi dooragul waaw nit ñee gi yéeg ñu ngi ni ligne baa ngi nii kay sifle ngi waaj a sifle ngeen ni di war a mu ni bis bu nu siflee li mu mën a waat man Maodo mooy di ngeen gis ku war naaru góor gis ku war mbaam mu ni parce que kenn ku nekk soo déparé li nga raw li nga war daan ko gis waaw defe naa ku war naaru góor nag koo moom dana àgg ba toog waaw loolu mu daan wax mooy bëggoon delloo si nit ñi ci xikma bi xikma ba mooy lan mooy diggante diine diine islam bi tarixa Mawlaay ma Ahmad Tijaani ak relation ak yonent bi kon loolu mën naa ni sax bi ñuy def Cheikh El dugaluñ ci woon dundi shahada boobu mais lu taxoon nu leeral ka mooy ñu bari dañoo xamul li Cheikh El Hadji Malick liggéey ci senegal waaw ndax lu tax ñu bari ci jeunesse bi benn sax danga naan amatuñu xel xanaa ndax war ngay gëstu ba noppi waaw war ngay xool ba pare war ngay xool ni ni mbir tëdde waaye dama su suñu nee réew mii di Sénégal laa su suñu nee lislaam dañ ko fi man de d' accord naa ci waaye Maodo daa ko sauvé lee lislaam dañ ko sauvé te ma dama gisul fi lislaam jéegee fi moo ma jaaxle l'islam bi ko yonente bi taxawalee ba yàlla d' accord ni taxaw na ba léegi mi ngi continuer di existe waaye bu nee nag dañ ko fi xam nga li commencé ni dañ fi sauvé li waaye léegi dañ ko fi sauvé daa ko sauvé suñ ma waxee damay indi preuve yi jumaa yi mu taxawal wasifa suba wasifa ngoon ak julli ba jamono jooju ku sañoon julli rawatina wasifa waaw kenn sañul woon julli rawatina di wasifa waaw te indi na julli ba ñu taxaw di julli ñu nodd àndandoo di julli tubaab yi di xool ñuy wasifa tubaab yi di xool mujj na waxatuma la maanaa yem ci julli ba yem ci wasifa ba mu indi gàmmu 1902 laay wax xam nga 1902 ak Sénégal ba mu amee indépendance ñaata la 58 ans mille déedéet xam nga ñu bari léegi xamatuñ date moo tax. 1902 waaw jar na leeral ndax jeunesse bi ñu bari xamatul 1902 ak bi Sénégal amee indépendance juróom fukki at la ak juróom-ñett kon boobu tubaab yi ngi fi fees dégg waaw 1902. tubaab yi duñ tere woon nodd gënalu leen. Maodo ni noddu leen nu nodd nu teru julli. Maodo ni dañuy julli waxtu juróom yëpp duñ raw te ci seeni base lañ koy def ñu ni nanu yam ci loolu koon tëj jàkkee mu ni na ni wasifa suba nu ni xanaa suba rek lay def mu ni ak ngoon nuy def ngoon tubaab yi ni xanaa koon léegi foofu lay yem mu ni nan gàmm yent bi lañu bëggoon ñu ni waaw mun nan ko wooteel Cheikh El Hadji dafa ni bu kenn ni man Maodo sama bopp laa woote wooteelu ba sama bopp wooteelu ma ci waawoon xam nga ku ma wooteel yonent bi laa wooteel ñu ni ñu ni xanaa da ngay bàyyi ba Sénégal am indépendance ngay soogay woote mu ni 1902 laa koy def 1902 bi Sénégal am indépendance 58 ans 1902 tubaab yàgg ci ma ni la 1902 boobu benn nit xew kenn xewut loolu kay même ku ma dégg daf may daf may gërëm si loolu ndax looloo am nan ma wax léegi ban xew a amoon 1901 ak 1900 nan ma ko wax déedéet xam nga réew il faut nuy leer nanu wax léegi maanaa ci jamono jooju ban cérémonie moo amoon ban cérémonie officielle rek moom moo amoon ci réew mi ci jamono jooju ci 1900 ak 1901 ak 1902 ban cérémonie am nan ma ko wax bun ma wax ma d'accord mais benn cérémonie am Cheikh El Hadji Malick fi woote cérémonie religieuse ni nan gàmmu kañ 1902 la woote gàmm ci waawan la woote de ni na ñëpp ñëw di gàmm 1902 tubaab yi bëgguñu woon benn cérémonie bu jëm ci wàllu religion am fi Maodo woote 1902 man kay d'accord naa këru diine yëpp waaye dama bëgg léegi cérémonie bu fi amoon na ni ma ak bii waaw ziar bu fi amoon na ni ma diw tam daan na ziar nan ma ko suñu ko ma d'accord 1902 la woote gàmm waaw ñu ñëw commencé di gàmmu ci réew mi ba ñëpp moom la nu roy bi Maodo gàmmoo at bu njëkk ba muy 1902 nu gàmmu 1903 nu gàmm 1904 mu ni léegi nag jaratul kenn di déplacé wu bàyyi gàmm ku nekk mën nga gàmmoo fa nga nekk commencé décentraliser gars yi gars yi mujj léegi tubaab yi dañ doon wax ah xanaa tànt leen ci waawoon fa lay yem gars di tànt dëkk bu ne nag léegi gars yi di tànt nag léegi léegi nopp tubaab yi la cay fanaan mooy salaatul fatiha laa ilaha illallah jawharatul kama yonente bi yàlla mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane mooy fanaan see nopp ba fa kon réew mii di Sénégal boo amee ku ko sauvé Maodo moo ko sauvé sauver saxaada kay bu amee Cheikh El Hadj Malick moo ko sauvé ndax réew boo koy sauvé da nga koy sauvé ci euh, loo xam ni ñëpp ci bokk gàmmu gi ñëpp ci jëriñoo ba léegi noonu du ñu ngi gàmm ñu ngi def yëpp jamono yooyu yamul moom Maodo ca gàmmu ga mais même fukki fan balaa gàmmu ga mu indiwaat imaamul Buseyri pour du ko di riir <laughs> tubaab yi sonn nañ di nodd a ngi riir bëggunu mu ngi riir mënuñu si dara jullee ngi am bëggunu te jullee ngi kon ni di am wasifa subaa ngoon a ngi am bëggunu woon loolu mi ngi am léegi neen doy na gàmm ngi am léegi nun xanaa bisu gàmm kese lay am fukki fan yëpp balaa gàmm ñu ngi jàng kon koy sonn te loolu yëpp Maodo di ko def te nekk fii ci réew mi toog fii ci réew mi ànd ak gars yi di ko def nu koy dindi kenn du ko jël si te kenn du ko jàpp tam mi ngi noonu di def loolu gis nga nit yi il faut nu leen di il faut nu leen di dellu li ñuy wax ni diine islam ku si nekk ku nekk dañuy reconnaître ni nekk nga ci diine islam waaye nag ni ma lu tax sax histoire bi nu koy di leeralaat mooy léegi histoire dafa mel na day bëgg fay ndax léegi dafa bëri ñu bëri wax te xam nu li xew fii dafa fi ñëw daa ma indil dat dinaa la wax kañ boobu ma ni jamono jooju kay 1922 bii fekk zawiya ba di réer fële képp ku fi sa jumaa tijji waxtu woowu wax ma damay d'accord boo ma nee jumaa ji tijji na rek ma ma takk ku fi amoon jumaa juy nodd wax ma ni ma jumaa ji nangam la tijji jumaa yëpp mu ngi fii daj yi ma denc xam naa benn bu ne kañ la tijji ak ka tijji ak ka jiite woon julli ña ak ñu ñëwoon mu ngi fi ma denc ku doon gàmm tamit jamono jooju ku fi amoon ziyaara wala organisation bu mag booy def nga jiite ko tubaab yi nangu loolu yow ngay jiite ziyaara di def loola neex wax ma Maodo daa fi def gàmm 1902 kon waxuma moom côté lumière am waaye côté boobu mu liggéey si Sénégal xam nga sax boo gisee euh, yamula bu Cheikh El Hadji Oumar ndax dama ni woon euh, ku ci nekk rek damay wax ci gaay cheikh yi sa liggéey ci côté lumière mais moom boo gisee ma wax ci côté saxaadaam dama gis ñu bëri di ko di ko di ko di ko yamaleeg ñu nekk ci réew mi te du ci moroomu kenn du ci moroomu kenn wallaay wallaay waaye ren ñu ngi koy tëkkaleeg laaj naa benn nitu yàlla lu tax toppul woon Cheikh El Hadj Malick mu ni ma ci jamono moom moo ma wax ni ma ci jamono Maodo dafa muur asamaan ba kenn mënul seen sax ñaareelu asamaan. xutbaan may na ko lool te moom moo ko seet euh, góor gi di wax ni ker sedd léegi gi moo sedd ah. ker bu seddee ku toog rek ñu sëriñ ak ñi Cheikh am noom waxuñu waxu sëriñ xam nga lu ñuy wax waxi nitu yàlla la ñuy wax waaw ñaar la mooy ki lay wax wàllu sëriñ ak ki lay wax wàllu nitu yàlla bokk la waaw mbiri Cheikh El Hadj Malick du mbiri affaire sëriñ mbiri nitu yàlla la waaw yooyu seen mbir wàllu sëriñ bokk ci ñoom li muy xool mooy mooy mooy nu wax dañuy dañuy wut ci yonent bi nàngam wal dañuy liggéey ci yàlla nàngam li leen yàlla defal ba noppi jox leen am na benn euh, kilifa gu mag ci tarix xaadiriya muy Cheikh na Cheikh Sadbu ñu bari xam nañ ko xutbu zamaan la woon à mu seede woon loolu ci Cheikh El Hadj Malick dafa ni waxuma Maodo bëgg yàlla moom moo ko xadir la mu ni waxuma Maodo bëgg yàlla yàllaa bëgg Maodo loolu laa waaw mu ni lii Maodo taxawal ci réewum Sénégal te moom Mauritanie la mu ni su fekkoonte ni du Maodo rek bëggoon yàlla ah kon yàlla dina am lu mu seetaan de waaw yàllaa bëgg Maodo moo tax boo xoolee lii mu taxaw ci réew Sénégal da ngay wax bi loxoom la mais mbir yàlla la ndax lii nit kese mënu ko def te ki ko seede Mauritanie kon gis nga boo xoolee relation Cheikh Al Hadj Malick ak tarixa Tijaniya da ngay gis ni waxuma lu bari ci côté lumière la mu ca am mais da ngay gis même côté shahada lëm ca liggéey loolu kese doy na lumière waaw beneen degré bu ko yàlla jox nga xam ni moom la ñuy jeexale Mawlana Cheikh Ahmad Tijani jox ko ci côté spirituel mooy Cheikh Al Hadj Malick képp ku ko mës jox loxo mu nangu ni nuyu nga ko ndax nangu ni nuyu nga ko nitu yàlla mën nga ko jox loxo mu jox la loxo jàpp ni nuyu woo nangu ba mi ngi dem ca mi ngi mi ngi des ca ruuram nit mën na la nuyu nga nuyu ko jox ko loxo te jàpp ni nuyu nuyuwu la waaw yow boo nangoo ni nuyu na la nit ki bu la joxoon catu loxo sax jàpp nga ni nuyu na la Cheikh defal na Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ci côté spirituel Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani defal na Cheikh El Hadj ci côté spirituel. Mhm. képp koo xam ni mës na ko jox loxo mu nangul ko kooku ca moment bu mu ko joxee loxo ca la yaramam xaraam safara. ca la yaramam xaram safara maanaam ki nuyu Maodo Maodo nangu ni nuyu na ko boobu la yaramam xaraamee safara beneen bi mooy Cheikh El Hadj defal nañ ko ci côté spirituel ba léegi ca lay dellu béréb bi mu nekkoon muy béréb ba mu nekkoon muy Tiwaawan. béréb ba mu toogoon di zikr ak béréb boo xam ne mës na fa jaar di fa wasifa wala zikr fa wala julli fa ba àdduna di tukki soo amee basiira soo xoolee leer googu da ngay gis muy étincelle jëm asamaan maanaam suñu waxoon ni Maodo de wàcc na ci gaar bi julli fa ñaari rakka gaar boobu place ba mu julli woon ba àdduna di tukki da ngay gis lumière ba di a jëm asamaan waaw te lii ma wax la soo demoon tey jii ci ñi nga xam ne ci tarixa xaadir ñu nekk nga dem ci fu ñuy tuddee Nimzaat nga xam ni mu ngi ci biir désert Mauritanie soo demee ñoom seen bopp dinañ la dëggalee lii ma wax la waaw ndax bi euh, Cheikh na Cheikh Saad bu génnee àdduna en 1917 Cheikh na Cheikh Saad bu ci sërifu xaadiriya yi mag yi la bokk. Mhm. bi mu génnee àdduna en 1917 Cheikh Al Hadji Malick ñëw nu denc ko ba noppi mu ñëw laajte bëgg jaale ni xaaral mu àgg ca xabru ba defal ko ñaan ba mu àggsee fa mu toogoon def ñaan ba léegi boo demee Nimzaat foofu dañ ko wërale suuf sa dafa weex tàll di melax waaw. boo demoon léegi nu wan la ko suuf sa dafa weex tàll di melax waaw te suuf si ko wër Nimzaat suuf su xonk la am suuf si dafa xonk mais place bi mu toogoon suuf sa dafa weex tàll di melax ñii tibb nañ ci ñii gas nañu lu nekk noo gas si suuf sa di gën weex te fa mu toogoon rek la am waaw muy fa mu toggoon di ko ñaan waaw kon déjà loolu ci degré lumière ak ci degré côté spirituel mënees na ca jàngat loolu maanaam kon yàlla jox na ko grade boo xam ni moom bu taxawoon julli ci benn béréb lumière ba day continuer di jóge foofu jëm asamaan dootul fayati abadan waaw beneen bi nga xamee ni mën nañu ko jàpp ba léegi ci côté spirituel bu Cheikh El Hadj mooy moom melokaanam ci wàllu sell <coughs> maanaa sell te suñu ko waxee mooy koo xamee ni su jàppee ak su jàppwul yëpp mu ngi sell waaw ndax maanaam sell teem du def rek ñu ni jàpp na ma nga sell dafa am nit ñoo xam ne yàllaa leen sellal ba noppi ñu jàpp ak jàpp guñu yëpp ña nga seen Cheikh Al Hadj Malick ci wëli yooyu la bokk mooy wëli yi nga xam ni mësuñu xëy benn jour nu ni ci moment bii ni seetluñu wala moment bii ni ànd ñoom jàpp foo leen fekk ñi nga ànd ak jàpp waaw léegi nag loolu yëpp mu doon ak sagesse boobu yëpp mu am li ko couvrir mooy réew mi nu wax ni mooy réewu axtaab yi muy Sénégal lu lu mu fi liggéey ci tarixa bi la mu fi tabax ci jàkk la mu fi lal ku nekk de yàlla mën na la may pouvoir mën na jox nekk mais gëmun daa fi tabaxati loolu ci jàkk waaw te beneen bi mooy li ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani may mooy beneen bi ku fi tabaxaat jàkk ku fi tànt ci yonent bi ngay axtaab ngay xut bu zaman ngay xaw ci moom nga ko roye waaw mën nga ni kay gàmm naa ca kaw waaye maa ngi gàmm ci suuf ci moom nga ko roye waaw ci Cheikh Alhaji Malick may nan ko moom Cheikh Alhaji Malick en loolu yàggul sax nu organiser gàmmu asamaan ba gàmmu ga pare axtaab yee ko organiser de ñëpp jàpp ni léegi gàmmu gi xanaa pour Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani la wala pour yonent bi la wala pour yàlla la ñu organiser ko asamaan axtaab yi organiser boole seen doole organiser gàmmu organiser ko kan Cheikh Al Hadj Malick ca asamaan moom donc moo ko am muy 2005 yàggul 2005 la lan 2005 la nu organiser ko gàmmu ca asamaan mu ñëw nu jox ko kàddu gi mu wax ba fajar axtaab bi dem ñibbi axtaab yi ko organisé comme ni ñu organisé ziara Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaan kon loolu mën nañu rek lenn la ci lu ñu jot a cox ci dundam moom Cheikh El Hadj Malick nga xam ni sax boo seetloo waxtaan bi da ngay wax ni ña nga gën a wax sax ci wàllu shahada bi ndax lu tax jamono ko laaj jamono moom su laajee nga leeral shahada yi foog nga leeral shahada côté lumière ba moom comme la mu ca am kenn xamul na mu toll waaye comme côté shahada bi ñu bari Sénégal jànguñu histoire nu bari bi dañuy bégg rek di laajte il fallait nu leeral tuuti ci dund Cheikh El Hadj Malick ci côté shahada ba ñëpp xam ni du ko ni tëkkale ak nit du ko ni yamale at nit du it moroom ci wàllu cër ak ci wàllu pouvoir kon yàlla nañu yàlla yàgg def taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani xaq may nuy dund ak moom zahiratan wa baatina may ñuy ànd ak moom abadan ba biir illee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu